topp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ci teewlu bi tey nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy marché Zinc ñëw ci centre commercial Batora tey ki ñu fi indi bokk ci muy Omar Chauva ngeen xàmmee ko bu baax doom Ndeye Waly Seck Omar ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar. waaw maa ngi lay fay xaar bu baax di leen nuyu di leen ziar ak yéen ak seen waa équipe bi ngeen àndal di liggéey liggéey boo xam ñu lay suivre vraiment. ñu lay nuyu yëpp di leen jox ko su nekk sa wàccuwaay. d'accord alors tey nga dajale ñi nga xamante ni ñoom ñooy star yi laa ko mën a tuddee fi nga xamante ni moom mooy sa place ñu bëggoon la xam objectif bi lan la tey da ngay wala tey da ngay def lancement décembre. non wallaay <laughs> inauguré wu ma defuma lancement defuma daaw parce que nit ki ku la ku la yëg dong moo la sonal ndax yàlla xam na ne démb Médine mi mooy sama seede si laa soog a xam ne wàllu dafa ñëw. yàlla xam na. démb ci euh, démb laa soo xam ne wàll dafi ñëw. dafa toog a toog temps yii passé la ma woo ne ma dama bëgg ñëw sa boutique. wax dëgg yàlla mu doon ànd bu sincère it sama diggante ak moom ndax it li may wax xañ na Médoune mi doy na ma si sama diggante moom du tey. ba may jaay mbuus la woon. te boobu kenn waxagut Omar Seba Omar mbuus leen daan wax. ma ko daan fekk akapes mu fay tëgg. te loolu Médoune mi doy na si seede caba bi nekk wal fa doy na si seede loolu du tey démb la. kon tey bu ñu demee ba tam moom wax na ko keroog Ba mu ne nee kii ba ma koy xam Omar Waale la tudd tudd Omar Saba kon sama diggante moom du tey ñëwu fii ndax relation Omar Saba ak Waale Seck de dafay ñëw diggante mag ak rakam ndax li may wax rek la ma boole ak moom weesu na Saba weesu na leneen boobu maa ngi jël mbuus di ko teg fii dëkk bi marché asalem di ambulant mu fekk ma marché asalem sama biir nawle may jaay mbuus mu yëkkati ma teg ma si kaw ne xale bi na ngeen ko ñaanal loo yàgg na du tey kon bu ñëwee fii tey xañ na day beesaat si bëtu nit ñi mais man beesu samay bët wax dëgg yàlla mu doon lu foofu si ma nit mu nekk sama mag sama lépp sama conseil amul lenn lu may def te bu gën a ndaw bu ñu ma fa invité dinaa ko xaajagu dina ko suba dina ma invité mu ne ma booy demee waxee lii waxee lii waxee lii waxee amul lenn la boutique bii la ko sos ba nu mu toll nii amul lenn lu ko si ëmb wallaay jàppale ma sama combat jàppale ma sama liggéey jàppale ma si lépp lépp lu ma nekk lu ne mu ngi ma siy jàppale di ma soutenir vraiment si dooleem ak ci xelam te loolu dong lay xaar si moom it encore une fois loolu dong la def si man wax dëgg yàlla mu doon koo xam ne bésu tey bi wax yàlla bokk na si bés yi ma gën a neex si àdduna ndax lii man leex na ma ku ko bëggoon a def loo di nga yëkkati millions yu bëri wala nit fay na ko xaay bu di jàppale mu defal ko du ko defal te moom moo taal essence moo taal oto am sama dërëm demu si lépp moom moo ko def ne ma damay ñëw tey pour seet si la sa boutique te loolu doy na ma sa pour gën ma jëmmal loolu kese la mu doon nit ku man nitam nag man du ma ànd ak nit si tuuf du ma ànd ak nit si alal du ma ànd ak nit si daraja du ma ànd ak nit si nu mel man nit ki ni ma jàppee noonu la lay jàppe boutique bii kii doon am na seede Médoune mii man lu may wax day am seede kii ba mu ñëw boutique bi nekk TFM boutique bi lu ndaw la boo taxawee keneen du taxaw te yàlla def mu yokkaat ñoom ñii mu ngi nii man lu may wax mu ngo lépp ñoom dañ ko fekkee dañ gis nga buy buy géwal di tuddee waali la centre du peuple boo maa ngi marché asalama sama kanam la maa taxaw si buntu boo maa ngi boo marché asalama woon mu ne ko la centre du peuple buy géwal moo ko tuddee woon sama kanam maa ngi taxaw bi mu koy interview maa taxaw si kanamam kon sama diggante ak moom du tey amut lenn lu may def lu ko ëmb te chaque fois da si bëgg ñëw mais lii lay bañ gis nga lu fi xew tey bu yàggoon nag musiba dina te yàlla xam ne ne bi muy ñëw dafa amoon yéene pour wax ak presse am yéene pour wax sama diggante ak moom am yéene pour jàppale ma sama liggéey mais gis nga ñaan bu nangoo sonal boobu. côté côté sécurité que gis nañu bi Wally Seck duggee fii dafa dafa bëri nit yu nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon am na sax ñu tàmbali woon di dugg ci place bi pour raison de sécurité peut-être moo tax mu daal di dem. bien sûr parce que soxna si man xaw ma fu ñu ngi jógee yow yaa ngi ni bu max naa la sànq dama mujj am kersa jaaree ngi ni laaj ko dama mujj am kersa puus naa la tayu ma parce que man xaw fu ñu ngi jógee dama toog a gis nit ñi du yegg sax xaw ma fu li mu wax dëgg la nit ki boo doo ko seet si di ko yàqal te xam naa bu fi yàggoon nag scandale dina am te xam naa li tax bëggut a toog te bu toogoon man xam naa ne bu demee man dinaa am lu ma def mooy lan dinaa defaraat sama boutique te gis nga bu mu ñëwee taxaw dafa ñëw rek ma tàllal la ma ñaanal te ñaan gi ma ñaanal wallaahi dafa sedd sama xol ndax mag mooy bàyyi te waale du sama xarit sama mag wallaahi bu may wax si moom sama xol dafay tooy sama xarit sama mag la waxtu wu ma neex laa koy woo ma neex laa koy envoyé waxtu wu ma neex laa koy laaj benn lu amul lenn lu may dugg te moom joxoon ma si conseil ne ma defal nii wala defal nii li may wax laay la seef mu ngi nii mooy sama seede ñoom Medoune ñu ngi nii amul lenn lu muy dugg tamit Medoune a ngi nii laay la seef a ngi nii dama si am ay seede parce que moom dong man ba ma doonee Omar ba léegi billaahi wallaahi moo suma tax a boîte du ma dugg boîte liggéey laa gëm wàcc te dina la moom dong moo ma jaral ma taal sama oto guddi dem soirée ñëwaat te parce que fi mu toll si man moo gis nga soxna si yëg mooy lépp gi nga yàlla suñu borom bu waxtu julli jotee julli ngay julli yokk ko dara boo ko jullee wàññi lu ko dara mais xam nga lu mu soxla yëg gi nga yëg ne waxtu yu jot na nga bàyyi lépp li ngay def dem julli ko te loolu la doomu adama soxla si moromu doomu adama mu yëg-yëg te wàlli dafa mën nitam vraiment c'est c'est très content kon euh, ñi nga xamante ne dañuy wax que ni quand même yéen jël seen xaalis di ko tuuraat ci Wally Seck pour am tur wala pour am bës tey loolu noonu lan nga ci wax <laughs> waaw parce que ñuy wax xañ xañ na ñoom dañoo xamul Wally danoo danoo xamul wàllu démb tey soo a ñëw parce que yaakaar naa bu doon xaalis a indi wàllu fii si Omar Sëba wàllu du fi te kàngam yow loolu xam nga ko ndax it gisuma lu ma ko mën a fay moom ba tax mu ñëw si boutique bi gisuma ko déedéet wallaahi waxtu woo neex ak waxtu woo ko bëggee wax ma ma ñëw si boutique bi ba démb démb bi ñu jox koo téléphone àjjuma melu na ngi ne vendredi la bëggoon a ñëw ma ne ko dafa jàmp mu ne ma neen ko défendre ma ne ko dafa jàmp laaj la chef mu nii ma ne ko noonu neen ko bàyyi samedi mu ne ma c'est bon ndax balaa may dem deux heures ma jaa fa def falaas wax ak presse bi dem demaat sama yoon vendredi la bëggoon a ñëw te suba suba su ma bëggoon mu ñëw fi dama laan ko ñëwaatal parce que sama diggante moom du lii du xaalis nit ki nee naa la da ngay toll ak moom foo xam ne xaalis du leen boole man du ma ànd ak nit ndax dërëm du ma ànd ak nit ndax ni mu mel du ma ki da nga may yëg ma ànd ak yow te wàlli ma yëg. wax dafay firndeel que ñi nga xamante ni dañuy wax que ni artistes yi maanaam amuñu xàmmeel maanaam euh, ku nga xamante ni dund nañu ak yow après dañu koy fàtte. waaw parce que loolu xañ na ñoom artistes yi ñu dundoon moo tax mais ku xam Wally démb xam ko tey wax dëgg yàlla man mi ko xam démb man mi ko xam démb xam ko tey doon ko topp akapes topp ko pénc mi ba tey muy ñëwaat fii si boutique bi xam Wally démb xam ko tey doo waxee loolu. parce que man nag bu ma la waxee ne te yàlla tax awma relation ak benn artiste man. waaw non non parce que man dama concentré wu sama bopp si toog mais jëmm ji dafa doon koo xam ne si man dafa rëy si man te dama daan dem kër DJ Boubs su Assane Grand Yoff boobu DJ Boubs su mu ngi dëkk Assane Grand moom Waly mu ngi dëkk Assane Grand moom ak Aziza ñooy ñëw kër DJ Boubs chaque dimanche maay fréquente ak ñoom boobu maa ngi wër di mbuus déggoo la ma la wax yàgg na mbedun bi mooy sama loo yàgg na du kii la ma boole moom du lii wala yanzim du lii ndax xaalis du dara lim def ni tey bu doon bu doon xaalis du ko def mais xoolal tey coono gi mu day fii pour fii xool ko te xaw ma nan la jënd essence am xaw am yéene si man ne ma damay ñëw sa boutique seet wax ko ñu la neex ma woo ñu ma neex na leen wàlle day ñëw suma boutique seet sama c'est tout loolu dong la sax. d'accord ngay ànd ak moom te ku nekk xam na ni jamono ji coow showbiz am na ci réew mi ngay ànd ak Wally Seck mu nekk sa xarit tey chaque at ak lu nga xamante ni peut-être tuumaal lañ ko ko wala chaque at ak li nga xamante ni jiiñ nañ ko ko yow nga xam ko di ànd ak moom tey boo déggee yenn kàddu yi ñu koy teg ci kaw Wally Seck. ñaaka xam xam nga yow bu la laajee si Médoune te nga doon ko ñemee yàlla te mën a wax xaw ma ba wax la nga sant ko loolu kese moo xam mais nit ki bala ngay wax si moom da koy xam te xam nit ki yombut te nit ki loo ko xam-xam moo la gën a xam boppam te ñun Sénégal nag dañoo am benn sikk dañuy bëgg di wax si nit ki te xamuñu ko Sénégal moom du ne xaw ma sénégalais du xaw ma hmm, jamais dégg naa yaakaar naa foog naa gis naa te nit ki xam ko dafa jafe nit ki. xam ko dafa jafe Sénégal yi nag dañoo bëgg di si te xamul ko mais ko xam waa li xam ban façon nit la xam ne wax dëgg yàlla alalam sa lay jël di ko def si nit ñi digganteem ak Sidi Diop comme quoi li ci xew lu si xew maay sa fils ak duma sa fils maa jur Sidi Diop dégg nga dégg nga kàddu yooyu moom non man ma loolu ah bon euh, li mu wax njàpp lu kan wax njàpp Wally Seck lu mu kañ la ko wax lu soirée vogue quand du samedi man sax samedi maa nga njàpp dafa dem man sax sax dimanche soirée baale. non dimanche ma commande man dimanche du ma baale. jàpp dafa dem dama commerçant la man du ma liggéey fecc ba pare ñaan ko oto mu ne ko euh, peut-être yow yaa ngi ci yoon yaa sa yaa sa patron yéen a ngi ci yoon bu leer ba noppi ne ko njàpp euh, ne ko yow yaay sama papa mu ne ko yow ak Sidi yëpp man maay seen papa. alors loolu nag dafa jur polémique ndax tey euh, jaadu na Wally Seck yëkkati kàddu yooyu. jaadu na Wally Seck wax la. wax li moo jur Sidi man loolu dégguma ko baal ba ma dégguma soo cee tontu wax dëgg non dégguma ko loolu ah man samedi laay bàyyi samedi lu xew boog dama ko yëg lu xew baal mu dama ko yëg bu dee dimanche la man du ma jël dimanche ndax lëñ damay xëy liggéey loolu moom suñu bi ma ko déggee naa mais ban gis-gis nga am si déet lu ma xamul lu ma si wax loolu xamaguma si dara dara d'accord ah. alors ñu ñëw ci sa ndorteel hmm. parce que gis nañ la sa place bi nga xamante ni yor nga ko hmm. euh, nga ciy daan sa doole euh, est-ce que fii 2019 nee naa la mercredi laa ko ubbi jeudi vendredi samedi dimanche lundi ñii invité ma yeewu leen li may wax dafa am seede kii moo gàddu caméra bi place bi fukk su ndaw la woon gis nga lamp yi mu toll nii gis nga fi lamp yi toll foofu la ak lee pantre la woon kii moo ñëwoon vidéo yaa ngi ni sama téléphone moom ànd ak Mado ñëw di ko filmé dama ko ubbi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi ñu teg ma yeewu leen man nettali sama jaax-jaax soxna si man sept ans laay jaay mbuus mbuus yi nuy paquetage damay marché asal H&M nga laajte kan mooy Omar Sëba sëy na buddi koy bii ngay dégg boutique suñu Babacar ñoom bi nga daan dégg maa ko daan jaay mbuusu paquetage bu ñëwee ba pare li mu si sol maa koy jaay damay marché asal H&M nga laajte ma lan H&M? bi ma jaayee mbuus toog a toog ba si yàgg mooy bi état bi na dañoo interdit mbuus ah. mais xàcc boo gis ma si booy la ah, loolu yàggul man 2019 laa ubbi soxna si est-ce que xam nga ne 2010 bi bi état bi ne dana interdit mbuus ci laa commencé bàyyi mbuus yi teg ndànk di ko boole ak sëba yi di dugg si boutique yi di rangu la ma amoon si bénéfice si ma jëndee ko moto di teg di dem fii ba ay ñàkk ay ñàkkuwaat di def vente en ligne di ko def di ko def mujj si ma utal sama bopp salaire benn waay bu daan góor mbeng bu nekk marché asali moom may dégg man lu may wax daa am témoin ma ne ko dama bëgg chaque fin de may fay sama bopp boo na ma loolu noo ko mën a ma ne ko ma bëgg nga man li may wax ñëpp ak may seetaan chaque fin du mois ma ñëw ne ko bindal ma cinq cent mille maa ko fay sama bopp mu ma koy bindal nu dama dem ba si ma ko ñaata laa fi am mu ne ma onze millions cinq cent ma ko maa ngi un million loolu ñaata la du douze millions cinq cent loolu si laa ubbi sama bi mu nekk fukk si ndaw bi ma ubbee ba pare dama xeeb sama bopp ndax gisuma gisuma ba ma rangé sëba yi mais gëm-gëm wallaahi bi may ubbi boutique aw ma compte bancaire est que xam nga ne ubbi naa sama boutique 2019 2020 ba 2021 laa ubbi compte bancaire lu ma jaay defaat ko mais dafa am ñu si jàpp mooy li wax Médoune mi ñu njëkk a ñëw fii si la bokk Waly Seck ñoom ñëpp ku du question dërëm bi ñu jox ma non non du question xaalis man soxna si man li jëntuma xaalis yi man yëg-yëg laa li jënt si nit tey Waly Seck toogee scène bi Omar Sava loolu am na lu muy def am na effet bu muy def n'est-ce am na wala amul voilà tey bi ma koy ubbi métti woon na bi ma ko ubbi ba pare nee naa 3500 laa des. billaahi wallaahi taala 3500 2000 francs yi ma jël ko def ko essence dese wu ma 1500 ma dem jënd sama mbuusu meew bu 75 mooy sachet meew yu bële yooyu amaan bi 75 moom laa dem ñun ñaar. boo koog cax yi lekk ba seet ma xëy si bi may xëy si 1000 francs laa xëy si fii si boutique bu ma xëyee jaay naa 500 mille di jikko daanu jikko daanu tey maa ngi chef de entreprise la tey ubbiwaat naa beneen si kaw te tey maa ngi jaay en tey li may wàccee sëba tey Sénégal mën naa wax amul kenn koo fi wàccee macha allah wala wala te loolu du lu ma banque lebal du ma banque bu ne Omar wax lebal na ma nangam ne ko mosuma leb banque bu ma ubbee bi ma jamono bi ma demee ba bëgg a voyage si laa soog a bi compte. kon li ngay wax ni ndaw ñi mën nañ cee jaan man sama sama jaax-jaax bu dugal si internet bi man li may wax dafa am seen dugal si soxna si man nee naa la dama ñafe du dërëmu ndey du dërëmu bàyyi lu du ñaanu ndey ak ñaanu bàyyi ñafe ba toll yegg fu ma yokk tey li ma yoon nii sëba yi amul dërëmu nit bu si dem amul àq nit bu si dem amul boxu nit bu si dem li ma yokk maa ko ba ndax dama ñafe ba yàlla suturaal na ma am tey yokkute googu tey lay ñaan yàlla yéene naa ko sama benn bépp morom nag ndax li ma yor soxla ma si ñaan ma si tey bi may ñëw fii tey di jaay bu ma manqué laan benn pièce may benn pièce bu ma jaayee benn pièce day jeex du ma ko amaat damay demaat asalem wala ma demaat feneen dama ràngu ji ko ñëw wékkaat di ko def di ko def ñetti at tey maa ngi nii tey di wàcc ay conteneur macha allah ubbi naa fuy jaaye en gros macha allah loolu donc la man si loolu laan soxna si man newuma si lu dul liggéey man si liggéey laa si nekk maa ngi si ku si nekkul ngi li ma yox dama ba yàlla jox te lépp loo xam ne ñëpp ñoo xam ne xaj nañ si dinaa leen si xajal. alors lan sant leen gërëm leen encore une ndax woote yomb na mais woote ñu wuyu si la ñoo tey yéen ñi bu doon xaalis moo leen fi teewloo du fi teew yéen ñii ñëpp bu dee xaalis moo leen fi teewloo am na leen lu ngeen war a def mais dangeen ngeen dagg lépp ñëw te ki ngeen ko defal nag gis na ko te xam na ko it encore une fois ñëw ngeen fi ndax ñaar ñëw ngeen fi ndax Wally Seck woo leen te Omar Sëba moo leen woo am na wala amul. kon ñëw ngeen fi ndax Omar Sëba ñëw ngeen fi ndax Waly Seck waaye ñëw ngeen fi lu ëmb lépp muy seen baaxaay ak seen woyofal kon di leen ñaan yàlla yéen seen liggéey yàlla gën ko lawal ndax it bëri na li ñu xamut si yéen lañ koy xamee man tey lu am si dëkk bi yëpp damay dugg YouTube def direct liy xew yëpp yéen yéen ay teew si buntu tribunal bi ay teew si buntu fépp yéen ay wàññi ni li xew yéen a nii bu ngeen fi jógee yéen a nga jëm tee surtout maa ngi koy waxtaan ak ca euh, euh, euh, ma ne leen site internet